yo baɗi mandinko nakka moylal attal min ko ibara tv jiɓe ka faali ko ala barka eh, alnumbara mbi mbiƴanne 8 mars eh, nin musolɓe kacala association mi mbiƴay ka fo mbiya afta eh, afta il est président to bijan ka fo e pardon madame seydi abidjan anala mool mais ñande kacala 8 mars o la mais d' présenté après gana du 8 Assalamu mbe bébé konton na ibu mbe na ka ibara tv bébé konton antalo madame seydi khadimane présidente euh, association femme de pour l'action afda association si jomni fonoji association no karola ah, association femme de pour l'action niyamoye faye femme moye jeele musukaf kuro lon euh, muyalon ko daari départemental o Amanda amandan gudompo dam manna association kabo manga kundalo kata fofa sara nyako commune o commune mon la membre du jele a ah, kan yaji mon la vice président au fond abe commune de Djibanarle, et résident birkama ni dada ñu fon djubé afana birkama le kay tan ko doro ko afda mu association mu yalla ko do dama association mais département bi la association mu te association ñu fana ayel tam mu so bele mu yalla ko ba 18 ans 18 ans euh, Kasele Woye Santo ah, i bɛ dans le département de Goudomp i sebulanoñi association to association ala objectif o mun c'est contribuer au bien-être de la femme et de la protection de l'enfant wala muñinte euh, association molu wilta mun na wala ñumte musoo la keeku ani a diw fanan ka kanta kaatu ta fono musoo e man diw fo musoo pour ay keeku ay tara kayro kono ah il faut ko aɗum fana jata création tel kayro kono wala adna ni ko muso ɗono foya fodin ni ko ɗum fana foya muso muso wala entel kam mama fanna mun na muso no ana ɗum wa say bi albija albenta dia 8 mars o la bi 8 mars o ali simnolo tiril je comme muso parce que nga jele casamance jang euh, muso lo ña ñiata sénégal sa fono kono tembi tala politique ono te bare jewama mbedia message um la ñom muso te parce que ñiatal ñi meña ñiatal bi be kada kilinti 8 mars isimol nasino musol tema ñom muta pour que développement parce que développement wol ka saje samba nena ata ne ajube ibu ni nan temo fon atata musola fannalla e ko investir en faveur de la femme accélérer le rythme e ko bi mo yalon ko muso euh, banco ala ñaato tabe le bala banco la ñaato tabe fonni ki wala bala so comme be ñin jamano mun banco pour ata ñaato be duniya le foma pour ata ñaato fo musol le wili e bulo dunje to

de l'autonomisation de la femme, de la lutte contre la pauvreté, sortir vraiment, n'est-ce pas, la femme de la pauvreté. Ok. Et c'est comment sortir nos événements alors, vous y dit parce que vous avez association. Il y a une action, il y a une action. Des fois, vous avez une école, vous avez un développement. Et là, vous avez une action qui est cadeau de l'homme, qui est à 8 mars. Euh, Salam alaikum. lima si yok de mo nek na ñun ay jigen len te tay la 8 mars dañoo ñew pour bégal suñu bop dañoo ñew pour tamit ñu mën ñoo gis ñu mën ñoo jappalé ndax ay jigen lañu lool la si yok légui yow ban message ngay lancer sa borom jigen ñi. sa borom jigen ñi li ma leen di lancé nañu góorgóorlu te xam ne eh, jigéen warul tok jigen da nga wara a nga liggéey jappalé sa bop jappalé sa famille Terima kasih. diamant noir ah dinaa ñëw waaw bii sama fóon kan mooy vice président bi kii lan la. la waaw en tant que membre développement dëgg ci yow bi gis ci marché bi gis nañ ci légumes yi te jigéen tout le temps day taxaw moo yor kër tey ban message ngay lancé góor ñi assalaamaaleykum mbaka fooɓe kondonna mum kata 8 mars oti mo solla feetolo ntaw mo sokona mo soli dula dula e tata je ni ka ben garage o ni ebe nje wulo kone mamu so be tentula man si adama mbolo kon tambe l'essentiel comme ñi nan tan felen fintita laftara jari fra nga ke mun tambita ñenti ah pour mun tambita merci beaucoup mbal da nga tagal ba ci kaw tay mo xamna micro radio mo amul problème <laughs> gis nga wa may nuyu ñep di len gërëm di len sante ah ñun nak ñu ngi tuddu afda association femme debout pour l'action tay nak dañ fi ñew tew le 8 mars tay bëss bi suñu bëss la té ñun tank amul ñu bëgg duñ bayyi Nous avons bi euh, tay journée mondiale de la femme waaw kon tay buñ ñun soxla problème moy formation ak financement parce que tay bo jigéen ñi ñoo yor kër yi Goor dëgg la de fu goor taxaw jigéen parce que ñun objectif contribuer au bien-être de la femme et la protection de l'enfant parce que ñun bis ñuy def nii bëgg nañ cee gis suñu bopp te bëgg nañ ku ñuy jàppale tey boo gisee président yi di falu nii jigéen ñi ñoo di fal pourquoi ñun mënu ñoo fal ñun wala mënu ñoo mën a jàppale may ñaan nag président ak fépp waay ne muy association muy GIE fu mu ne ñu jàppante bokk ndeeg bàyyi liggéey ñoo la ñun jigéen liggéey moo ñu tax a jóg tey da ngay xëy gis jigéen gàddu paanam di wër loolu pour lan njaboot gi moo tax ñëw defar kër gi kon bu loolu tey bu demee ba loolu di ko am ñu jàppale financé ñu formé ñu ñu mën a nekk ci jàmm jërëjëf